gan gi Hélène Tine euh, adjointe euh, maire bu Thiès euh, coordonnatrice M7 mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM waaw jërëjëf Fatou hmm. maa ngi sant yàlla seen invitation ak mën a wax ak seen auditrices yi ak seen auditeurs yi hmm. ak seen internautes yëpp bien sûr waaw di leen gërëm ci invitation jërëjëf ñun itam ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi alors Hélène Tine euh, conseillère municipale nga itam ci commune bu Thiès Nord seen maire Birame Souleye Diop ne ci loxo yoon barki démb ba léegi ndax ay kàddu yu mu yëkkati ñu jàpp ni àndul ak teggin jëm ci président de la République loola indi ñu ci discours politique bi yenn saa yi bi day mel ni tulleeg màlle te ñu bari ànd ci ne euh, bu kàddu yi dëgëree la cay topp mooy fitna maanaam fitna bu amee ci kàddu yi fitna itam dana am gannaaw loola muy jàppante gi mënuñu jàpp ne itam jafe-jafe boobu dafay gën di yokk bu ñu xoolee way politique yi ni ñuy waxantee ci langue politique bi. waaw jërëjëf Fatou maa ngi leen di gërëm ngeen di ngeen ma may ma mën a àddu ci euh, loolu xew te concerne nañu directement. Euh, may njëkk a wax ne maa ngi euh, wax sama solidarité ci suñu maire Birame Souleye Diop Euh, ni ko waa conseil municipalu Thiès Nord yëpp taxawee fi mu nekk nii mm-hmm. ñoom ñëpp a ngi taxaw euh, di ko ñaanal euh, di ko gunge ci épreuve bii nga xam ne moom moo ko dab ñu ngi ñaan yàlla comme déggalu na ñu ngi ñaan yàlla ñaan autorités yi tamit ñu bàyyi xel ci jéggaloom boobu mm-hmm. vraiment ñu taxaw ba lii wax te mu nekk loo xam ne xam naa ne bu doon démb du ko waxaat euh, ñu uh, dawal ci jiital ci uh, maanaam nuñ koy waxee jéggal hmm. bi mu ñaan ak euh, ndax mu mën a dellu si liggéeyam ñëw ñu ànd continuer liñ doon tabax ci mairie hmm. loolu nag buñ ko waxee ba pare il faut que ñu wax ne discours politique bi comme ni nga ko waxee maanaam kaddu yi ci lang politique bi war nañ ko oddaat seetaat ko ndax nag Sénégal tey jii di ñu xamee woon Euh, mooy wodd wax hmm. wax wax fi ko waree waxee ak nuñ ko war a waxee hmm. dafa commencé nag ci boor boo gis man mii àddunaa ci ci ndaje boo xam ne jigéen ñi woote nañ ko temps yële pour xool lan moo indi fitna bi ci ci réew mi hmm. ndax su fitna amee jigéen ay gën a jaaxle waaye seetlu nañ ne euh, discours politique bi maanaam kaddu yi ñooy jur fitna bi gën a bëri ndax kaddu rek kaddu fitna rek moo ëpp sax Euh, euh, fitna fitna boo xam ne doole lañ koy doxalee hmm. maanaam violence physique. Hmm. te te muy ci côté boo jël nag ci langu politique bi. Hmm. tey jii pour nga siiw pour ñu déglu la pour ñu topp la fu mu gën a méttee ngay waxee. fu mu gën a dëgëree ngay waxee. fu mu gën ñaawee ay sax ngay waxee pour ñu mën laa teg nga am bës. Mm-hmm. te loolu aussi yéen tamit taskatu xibaar yi war ngeen ñu ci dimbale. Mm-hmm. xam naa te lii dal Birame Souleye Diop war na nekk leçon ci ñun ñëpp. Mm-hmm. ñu xam ne euh, euh, am na politique euh, maanaam opposition am na waaye noonoo waruta am ci politique. ndax ñun ñëpp Sénégal lañ bokk te Sénégal ñu tax a jóg. en tout cas ñu ngi woote ñëpp ñu xoolaat langage politique bi ñuy utiliser ndax dañu war a nekk ay modèle pour génération yi. Mm-hmm. soo xoolee xale yi actuellement nga dem ci réseaux sociaux yi doo fa dégg lu dul violence verbale bu metti violence euh, virtuelle bu metti ba suñuy kilifa diine sax kenn. Euh, euh, épargné wu leen. ci mhm. maanaam sax ñoom laawaale nañ. ña ngay jot seen wàll kenn bàyyiwuñu kenn. Mhm. Mhm. alors bu loolu soo ñu wax ci euh, président Macky Sall gannaaw boo joxee sa xalaat ci ñàkk bokk yi mu wax ne du ko bokk ci élection présidentielle bi naka nga gisee tey làng politique bi ni mu nar a tëggoo wala ni mu tëggoo ba noppi opposition beeg pouvoir bi ñàkkul ne am na lu booba décision soppi wala nar a soppi ci seen doxalin. waaw ñu ñu ngi ñu ngi euh, euh, àddu nañ ci waaye ñu ngi ci àdduwaat si li nga xam ne moo xaw Sénégal président Macky Sall ba mu waxee ne du dem utiwaat beneen mandat dañuy ne alhamdulilah sant ci yàlla bu baax euh, wax ne Sénégal moo siggi ci kanamu àddina bi yépp mais félicité aussi président Macky Sall parce que nag def li la war. Euh, am nañu loo xam ne nit dara war na leen te defuñu ko dëkku yu bëri takk nañu. Mhm. ndax yëpp uti ñetteeli mandat wala bëgg faagaagal démocratie. Mhm. kon bu ñu ci muccee ndax moom ci boppam ak lu ak lu mënti xew. dellu na si ginnaaw mënuñu lu dul sargal ko mënuñu lu dul féliciter ko encourager ko ba pare nag wax ne dëgg la dafa deful leneen lu dul di charte réew mi nga xam ne moom ci ñu ko taxawoon dox ko euh, wotelu ko. Euh, théoriser ko euh, mooy ñetteeli mandat waratu fee am mhm. euh, loolu rek la doxal li charte réew mi tëddee foofu moom d'accord ma ci wax ne amoon na droit beneen manda moom ci boppam moo ko waxaloon boppam ba mhm. àddina bi yëpp dégg ko mhm. kon tey doxalul lu dul li charte réew mi wax doxalu lu lamu engagé woon kon dañ ko war a rafetlu Sénégal nag liñ manqué tey fii fi mu toll nii. Hmm. jongante bi dafa toll foo xam ne même yow sa adversaire bu defee loo xam ne dañ ko war a rafetlu. Hmm. dañ ko war a wax yow dangay ngay koy da koy dandal da nga koy ute yàq te tii nag ndamu Sénégal ndax Sénégal yëpp tey àddina bi yëpp. dañu taxawoon tiit ci Sénégal ñun ñii suñu bopp ñun ñëpp dañoo meloon ni ñuy matu. Hmm. di xaar yàlla indi ñu lii ko nag dañ ci war a sant yàlla. Mhm. xool nu ñuy taxawee. pour nag gunge ko moom moomu nga xam ne bokkatu ndax attaqué ko wax ko tey perte temps la. Mhm. lu ñu war a xool nu ñuy taxawee gunge ko ak boor buñ mënti ne. ba mu organiser élection yu mucc ay élection yu leer. élection yoo xam ne kenn du ko laam-laame intérêt la moom mi wax ni démocratie Sénégal rek a ko ñor askanu Sénégal ak Sénégal rek a ko ñor ñu gunge ko. ba tey li mu war a taxawee yëpp ci weer yi ko defeel moom mm-hmm. mate ko loolu mooy nekk ndamam mu mën a génn génnin bu rafet mais loolu mooy nekk ndamu Sénégal nekk ndamu opposition mm-hmm. kon man li ma xalaat tey mooy défi bi gën a mag mooy ñëpp mën a bokk ci élection élection yi jaar yoon leer euh, Sénégal gën a siggiwaat ci kanamu àddina bi jàmm am fi stabilité am fi ndax ci la lépp xaj. Mm. waaye buñ déggee Ousmane Sonko euh, honorable ndax tiit euh, jarul ñu koy def nee na bu fekkee moom bokkul ci élection yi réew mi dana duggaat ci guuta kawoo carrément la wax euh, te lu bari aussi mën a tax ñu xalaat ne du bokk ndax fi mu ne condamné nañ ko mbiram ak Mame Mbaye ñaam mi ngi fi tegee te ñu ngi wax sax naan léegi ñu jàpp koom déet est-ce que yaakaaroon ne ba tey ñu ngi ci guuta waaw balaa may àddu ci loolu bëgg naa président Macky war na xoolaat taxawaayam tëddee njaaxaanaay hmm. ndax boo tolloo fii nga ni bokkatuloo te yow yaa war a organiser élection yaa war a nekk arbitre waroo nekk ci far kon même taxawaayam sax ca biir benn bennoo bokk yaakaaram boobu mooy euh, euh, la grande coalition présidentielle hmm. war na ko xoolaat daf ko waroon a teggi tànk foofu tëddee njaaxaanaay wax ak ñëpp comme ubbi na buntu dialogue hmm. maintenant déclaration Ousmane Sonko boobu man de wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne jaaxal na ma na ma déclaration suñu maam Ablaye Wade jaaxaloon. Mm. ba mu ñëwee en deux mille dix neuf nekk élection du fi am dinañ taal mm. bureau de vote ba dëkk bi yëpp jaaxle. Mm. yàlla dimbale ñu ci amu ci benn résultat xëj na nag waxu politicien la moo tax ñu koy indiwaat waaye ku bëgg defar Sénégal tey doo wut a dugal Sénégal ci guta kon man xalaat naa ne surtout nag su fekkee koo xam ne ki ko wax dafa woote ne patriote te man gëm naa ne loolu la woote moom moom moom moom moom euh, euh, Ousmane Sonko kon man waxu euh, taal Sénégal ak waxu dugal Sénégal ci guta wax dëgg yàlla tey yii ak fi ñu toll ba addina bi yëpp di di di ñu di ñu di ñu sargal du jamono juñ koy waxee mhm. maanaam il faut ñun tamit ñu ñuy am ñuy xool jamono ju ne ak wax jañ ca war a wax mhm. moo indi lii yëpp xew ci Birame Souleye Diop. Mhm. jamono ju ne am na wax juñ ko war a waxee. kon nag ñu ngi euh, pour man euh, taalum Sénégal moom tey fi mu ne nañ ko teg fale mhm. ndax jàmm ci la lépp stabilité ci la lépp xecc. Mhm. man lu ma koy ñaan mooy toll nañu fii ndax c'est vrai am na ay dossiers yoo xam ne taxaw nañu. waaye lépp waruñu ko lijjantee ji ca justice paatuf hmm. am na question yoo xam ne question politique lañu démb barki ab lay Wade jaar na fekk Abdou juuf hmm. am na wax ñu bëri dañoo am dépassement dañu waxtaane ko ñu dépassé ko moo tax dialogue bi ñu génn hmm. waroon nañu ce profité ni nit ñi demee ndax dañoo yeewu ñu ne diil la ku fa dem da ngay dimbale Macky Sall pour mu uti ñetteeli mandat te tey jii gis nga ne faatu loolu amul xam nga kon nag nañu delloo si xel xam ne jamono ju ne ak doxalin bi ñu war kii moom pare na nee na mbër mu sampul ndënd la kon ñi samp seen ndënd ñoo am intérêt xool mbër mii nga xam ne sampul ndëndam mm-hmm. te moom moo nar a nekk arbitre langue bi wala moo war a organiser làmb bi mais ñu wax ak moom ba nga xam ne règle du jeu yëpp dinañ ko observer ba mu dem mm-hmm. mais bu fekkee dañuy toog fële di yónnee ku ne di xaxar kii de teratul xaxar kenn ndax addina bi yëpp ak ko teg ci kaw tuwaawu monde bi moom mm. nekkatul ci ay xaxar yooyu mm-hmm. kon nag ku fi ne di xaxaar yow rek yay perte sa temps mm. man daal maa ngi woo opposition bi ñu delloo si seen xel xam ne jamono ji ñu ne nag mooy jamono bal à xool jeu bi niñ koy lijjantee ba duñu bàyyi kenn kenn kenn au bord de la route en mm. yenn yi nag yëfu yëfu yëfu justice la justice bi am na lu bëri loo xam ne mën nañ ko cee wax ndaxte nag gis nañ fi ay tentative depuis bi fi Macky toogee tamit ay candidat yu bëri ñu faagaagal kon xëj na tiit war am na ci yoon waaye nañu continuer waxtaan ak seet nu ñuy def ba génn ci ci ci problème yi waaye buñ bëggee wax ne réew mi dañ koy taal kay mais loolu kon nag kuy taal réew de wax dëgg yàlla mm. bu yàggee nag askan wi ci boppam mooy daal di jaxle mm-hmm. réew mi de lim tàq rek doy na alors honorable yaa ngi yaa ngi junj léegi dialogue bi bokkoon nga ca donte wax nañu jaloog di lak la dañ ko nas ba nuppi ngeen doog a dem ak ay faire valoir ngeen woon yow mi bokkoon ci waxtaan yi lan nga ci jàpp dëgg-dëgg est-ce que dialogue bi am na njariñ et surtout est-ce que amal na njariñ sénégalais yi waaw man de gëm naa ne parce que man ci ñu njëkkoon a di laaj ndax dialogue bi est-ce que jar na ko wala ana terme de référence. Hmm. ak manque de confiance bi amoon entre nguur gi may Macky Sall ak opposition lépp nag tegu woon si waa ji dafa bëggoon def ñetteeli mandat hmm. euh, kon tey bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba génn ci dialogue tey ñun waa ji taxaw fee ne defatul ñetteeli mandat kon ñu doon accuser yëpp tey war nañ leen nangul ne demuñu fa woon pour diil ak waa hmm. man nag lu ma fa yóbbu woon te mu nekk fa yóbbu ay citoyens yu bëri ak kilifa yu bëri mooy ba ñu ne dialogue ba ñu dooroon deux mille te amoon ay termes de référence yu leer te ñu nekkoon ci ci liggéey ci commission bu ñu wax commission ressources naturelles hmm. nga xam ne lépp loo xam ne moo jëm ci napp gi ci ci ci ci ci suuf si ci mine yi ci pétrole bi ci gaz bi ci gàncax bi lépp loo xam ne tey mën naa ne soo xoolee tey tolof tolof yi ñu am faatu ci réew mi hmm. euh, euh, ñàkk sayt bu baax ak ñàkk taxawaay bu bi bi bi bi mucc ay bu am ci fànn woowu mooñu ko jural. Hmm. moo tax man te sénégalais yu bëri nag dénk ma seen i ay dossier ma ci wax mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk autour de l' de de de de hmm. muy ay ay ay village de Kesukhat de Kacalit ak ba Mbadak. Hmm. nga xam ne dañu leen fa génnee woon. daal di leen jox par exemple délibération cent hectares. ñu ñu signal leen ko en bonne et forme ba ñu toog fa. tey ñu bëgg leen faa jëlee ci li juróom-ñetti at te xaati moon lu ne ak ñoom hmm. mais loolu bu ko ak askan dénkee ak yeneen dossier yu bëri yu nekk ci biir département Thiès ak feneen hmm. bu ñu wootee ci waxtaan loolu boo demulee tooñ nga boobu askan hmm. li ma metti nag mooy dialogue bi dañ faa nekk jiital fa waxu politique kese mooy conclusion yi nga xam ne moo génn ci commission politique ba moo fi fës moom lañ nekk di wax te bàyyi nag bi nga xam ne moo ñor askan wi maa ngi ci lancé appel président Macky Sall ak ñëpp ñi nga xam ne dañu nekkoon ci dialogue bi ñun suñu commission nga xam ne général Fall moo ko Ablaye Fall moo ko jiite woon ma nekkoon assesseur foofu hmm. te commission boobu nee nañu commission yi dañu leen war teg sax ñu nekk maanaam ñu assurer suivi nu ñuy doxalee recommandation dialogue man ci wàllu woo maa ngi woo président Macky Sall juróom-ñett juróom-ñeenti weer yii ko desel ñu fexe ba ñu wasin fi doom joo xam ne dina tax askan wi gis ci seen bopp dina taaral li nga xam ne dina jëmmal mooy problème yooyu nga xam ne population yaa ngi koy dund ci fànn yooyu. Hmm. dina tax ba suñuy ressource naturelle comme ni nga ko waxee mu jëriñ bu baax a baax ak euh, développement réew mi. Hmm. man loolu gis naa ne su loolu am na njëriñ. te occasion boo xam ne la ñiy wax tey ne ubbeeku nañ pour waxtaan raté nañ ko. ndax buñ fa nekkoon affaire pare parrainage bii ñuy wax fa lañ koy waxee fa lañ koy lijjantee. Hmm. dañ na dinañ ci am ay ay ay ay ay loo xam ne ëpp na li nga xam ne ña fa nekkoon moom lañ négocier nii dinañ ko dinañ ko gën a e, e, taaral. Hmm. kon nag tey bu ñu wootee tee waxtaan ndax nag Sénégal loolu lañ ko xamee mooy mooy mooy mooy mooy. waxtaan ak lu mën a xew. Hmm. waaw dialogue jalook réewum jalook ak réewum teraanga. donc vraiment Fatou ñu ngi woo ñëpp. si ñu jéem a xool juróom-ñeenti weer yii. nu ñuy taxawee ba Sénégal vraiment àddina bi gën koo naw kiy toog suba ci la taxawaayam xej ci la teraanga Sénégal xej ci la jàmm Sénégal xej leer na jërëjëf Hélène ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yow euh, bokk nga ci ñu topp ci mairu Thiès adjointe nga euh, nga itam coordonnatrice M7 mouvement pour un Sénégal d'éthique et de du ñu fàtte ni itam nekkoon nga député ci assemblée nationale ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf jërëjëf